Adama Diouf euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau di nuyu waa Rewmi FM yëpp ak ñëpp ñi leen di déglu. Adama Diouf nga nekk euh, chercheur en droit déjà polémique bi nga xam ne am na ci nationalité française u Karim Meïssa Wade euh, déjà dama lay njëkkalaaj a lan moo waral constitution bu réewu Sénégal ne euh, képp ku bëgg a jiite réew mi faw nga am benn nationalité képp muy nationalité sénégalaise. waaw loolu xam nga ci suñ doxlu réew la bokk donc suñu tënk ko article vingt huit ne képp ku bëgg a nekk président fii ci Sénégal dangay ngay am nationalité sénégalaise waaye waroo jël beneen nationalité donc ñu gis ne Karim Wade am na nationalité française am na nationalité sénégalaise donc kooku constitution bi da koy dàq. waaw mais si lan lañ sukkandiku pour tere nga am beneen nationalité lan la c'est pour euh, nga gën a mën a défendre intérêt wu réew mi wala lan moo tax constitution bi prévoir disposition boobu. waaw euh, liñ si liñ si liñ si jublu mooy ki nga xam ne nii am na ñaari nationalité bëgg a nekk président fii si réew mi mën na indi ëllëg ay jeexi jaaxa ak beneen réew bi nga xam ne am na seen nationalité. nit ku nekk da nga war a défendre li nga wax ay fibre patriotique quoi donc wane ne man donc nationalité sénégalaise exclusive laa am donc bokkuma ci beneen réew donc loolu dafa nekk si charte boo xam ne nii dañ ko tënk ne képp ku a nekk candidat daal na am nationalité sénégalaise bi Mhm. Euh, tey jii euh, ñu daal di euh, disposition boobu am na ñoo xam ne dañu jàpp ni en fait Adama Diouf dafa archaïque parce que yi dañuy tukki dañuy dem fu ne si yeneen réew yi di jàng am fa soxna am fa ay këyit que dafa archaïque dañ ko war a xoolaat maanaam di tere nit di bokk si élection présidentielle parce que dafa am beneen nationalité à côté yow nan nga xalaatee loolu est-ce que d'accord nga ñu retouché waat constitution bi pour changer changé ko. non loolu man ànduma si loolu am lu ma si parce que yaakaar naa kenn ku si nekk boo demee ba nga xam ne sa dëkk moo la tax a jóg ngay laaj réew mi nationalité boo am da nga ko bay parce que boo gisee nit ñi di tukki di am yeneen nationalité c'est pour préserver leur intérêt personnel te loolu nag boo demee bay laajum réew na nga renoncer nationalité parce que jël beneen nationalité c'est comme si yow da nga renier à ta nationalité d'origine waaw d' accord euh, ñu wax aussi euh, Karim Wade euh, euh, nationalité française am bu ñu gisee sax xabaar yi nga xam ni moo wàccee ci journal officiel Euh, français bi mu nekk xabaar bu wàcc euh, yàggul dara di firndeel ni Karim Wade nekkatul français donc il est exclusivement euh, sénégalais processus de renonciation bi naka lay demee exactement Adama Diouf est-ce que dafay nekk processus bu yéex wala bu gaaw non xam nga nit ki nga toog nit ki toog renoncé nationalité moom daf ko def ci coobare boppam parce que c'est volontaire kon fu mu jaaroon ba nga xam ne am na nationalité bi foofu lay jaaraat ba nga xam ne ni moom it dina mën a am donc décision de renonciation bi maanaam euh, yoon bi muy jaar dafa nekk yoon boo xam ne nii gaawul yoon bu yeex la donc euh, par la voie administrative donc loolu mënoo ko am si benn mois boo xam ne nii mën nga renoncer sa nationalité yoon bi taxu ko gaaw hmm. donc dafay nekk lu gaaw c'est toute une procédure mën na jël ay at pour nga renoncer comme niñ la koy joxee mën na jël ay at comme ni ngay renoncer waaw voilà donc loolu tam la yoon bi mënut a gaaw parce que mënoo tëb un mois nga am décision renonciation bi donc yoon bi yéex na trop donc parce que ñoom ñi nga xam ne ñooy autorités compétentes yi il faut que ñu xool les motifs de la renonciation ak yooyu yëpp ak euh, tous les dossiers qu'il faut fournir. Euh, ñu wax aussi ci recours yi nga xam ni ay candidats ñoo ko déposé euh, contre des candidats ca conseil constitutionnel pour ñu bañ a valider seeni candidature mu nekk validation boo xam ne ñu ngi koy xaar ci 20 janvier bile recours yooyu ban jàngat nga ci am est-ce que mën na am aboutissement Adama Diouf. recours yi li ma si jàngat mënul am jeexantal maanaam ñi ko déposé mënuñu am dëgg si conseil constitutionnel commencé li nga xam ne Thierno Alassane Sall mi ngi ko kii si Karim Wade ne dafa am nationalité française ah gis nañ ne conseil constitutionnel bi muy saytu dossier euh, Karim Meïssa Wade bi am na benn kayit bu mu wane ne moom nekkatul français léegi sénégalais la si kaw loolu nag le conseil constitutionnel donc accepté dossier bi donc kooku mënut a jàll yeneen recours yi nga xam ne nii ñoom dañ ko déposé pour demander ne élection yi nañ ko daax donc loolu mënut a nekk mënut a nekk si kaw lan pour ñaari eh, yëf donc bi njëkk mooy kii bi mënut a nekk parce que déjà calendrier bi dañ koy établir ba pare te pour ñu reporter les élections il faut ñu xoolal constitution bi ñu jëm am nun si joxenti euh, ñaareel bi matériel yi nga xam ne ni ressources humaines yi mobilisées yëpp pour organiser les élections d'une manière transparente yooyu aussi mënuñu si ñëwaat parce que dafa nekk un coût colossal jàpp nga ni recours yi ñu dugal daal euh, du am benn njeexital non du am njeexital du am njeexital ci conseil constitutionnel mhm. ñu bëggoon aussi euh, euh, ama Adama Diouf yaatal un peu si conditions yi nga xam ne moom la candidat bi di remplir pour ñu valider candidature am normalement euh, neuf critères yi nga xam ne da nga koy remplir pour conseil constitutionnel mën a valider sa candidature. waaw euh, li euh, conditions yi nga xam ne nii kii laaj réew mi moom la war a matal pour nekk dem si joŋante élection présidentielle yi donc bi nga xam ne moo si njëkk dafa war ne wane ne moom sénégalais la. amul beneen nationalité ñaareel bi na wane moom mu suñu ko condamné wala buñ ko condamné kat am na benn loi boo xam dafa mas a amnistie maanaam effacé condamnation bi maanaam daal na nekk koo xam ne nii na sàmm ak xam ak yelleefam loolu mooy li nga xam ne nii mooy yi gën a am importance ci dossier bi beneen bi caution bi nga xam ni war na ko déposer caisse de dépôt et consignation war na wane quittance bi nga xam moom kat caisse de dépôt et consignation déposé na trente millions yi donc hmm. loolu moo gën a am importance ci li nga xam ni moom lay conseil constitutionnel di xool ci dossier candidat bi pour ndax mën na ko jàpp wala ndax mën na ko bàyyi. tey jii ci ñaar fukki candidat ak benn yi nga xam ne conseil constitutionnel euh, ñoom la tànnagum yan candidature lañ ci mën a euh, dàq. bu ñu saytoo seen dossier ci sur le plan juridique exactement waaw candidature yi si mën na dax mooy ñi nga xam ne nii yoon toppoon na leen tëj na leen ñooñu ku si nekk si situation boobu sa dossier daan ko teg fële ñeneen ñi nga xam ne ni biñ demee si parenage bi maanaam moto lun ñu ne leen dem leen ngeen mottali ñooñu aussi suñu ñëwee buñ ko saytoo gis na ñi seen kii ba léegi des na daan teg seen dossier fële ak ñi nga xam ne nii caisse de dépôt et consignation donc loolu mooy euh, condition yi nga xam ni vraiment soo ko rempliré sa xel mun na dal. xelu candidat bi mun na dal. Euh, voilà xelu candidat bi euh, question si sa gis-gis commentaire wala analyse si ñi nga xamante ni ñu ngi laaj ñu organiser beneen dialogue si jamono ji est-ce que yow jàpp nga ni loolu demande bu pertinente la organiser beneen dialogue politique en ce moment. waaw dialogue boobu lay wax. Euh, temps bi gàtt na gàtt boo xam mënuñu fi toog mu di wax ay dialogue parce que dialogue da koy def li nga xam ne moo jiitu ay élection mënoo toog ba nga xam ne élection yi vingt cinq février nga ne ah ñun nañu dialogue ban opportunité la am lan mooy intérêt bi loolu gisuma loo xam ne ni tey dana jaral conseil constitutionnel ñu reporté élection yi ne nañ organiser benn dialogue dialogue mënu fi am xanaa dañuy xaar ba nga xam ne ni après élection yi bu boobaa nag ki nga xam ne ni yàlla suñu borom moom la fi teg mu jéem a woo ko séq ñëpp ñu toog jéem a dialogue wane donc le moment n'est pas au merci beaucoup Adama Diouf maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. waaw jërëjëf jërëjëf madame Moreau maa ngi lay sant bu baax a baax di nuyu waa rajo bi waa euh, télé bi Rewmi FM ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi leen di déglu. may fàttali ni Adama Diouf vous êtes euh, chercheur en droit merci jërëjëf en droit.